lamb lamb lu coow ñeenti ñeenti ténor Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye Boy Niang non Ama Baldé moog Modou Lo combat la mais yeneen combat yi des du combat euh, euh, ni ñu waxee Balla Gaye Balla Gaye sama doom bi moo koy daan sa doom moo daan waaw euh, Ama Baldé la loolu gaa yëpp soxla ñëpp yaa ngi dégg Balla Gaye moom ak Boy Niang combat bu métti la Bombardier moom ak kii làmb la Reug Reug waaw parce que Bombardier nee day maye day parce que day gën ci làmb ji waaw Tapha tamit gars yi nanguñ koo jël depuis daaw bu léegi gars yi nanguñ jël Tapha Tine nan la demee noonu la moo tax gars yi nanguñ koo jël ah moom bu ma doon jox adversaire dama koy delloo si Balla Gaye mu fayu waaye Gris Bordeaux ba Tapha Tine tamit combat la mais man sama sa li ma li ma soxla combat yi nga xam ne ñëpp moom la ñu xaar moom Ama Baldé euh, Modou Lô moom la moom la gaa yëpp soxla. na dund tey ba tax na coow li bëri na Modou Lo Ama Baldé Balla Gaye Boy Niang waaw xam nga foofu nag euh, li ma ciy wax bariwul Modou moo toll ci tànn na tànn ku ko neex parce que nag moom mooy roi des arènes. moom d'accord na ak Ama mais Ama moo yokk lu kese. non Ama moo fi doon wax bu yàgg Modou Modou Modou biñ ko ne waaw. xam nga Ama kenn mosu koo fay ci dundam 80 millions man waa Pikine la bët du yenu mais xam na lu bopp attan bu dee Modou la doon laaj Modou nangu na na segg ñu bëre kanta Boy Niang ak euh, Balla pour man du combat du combat man Balla moo mën Boy Niang Boy Niang na dem laaji gaay yi ba pare door a dem ci Balla Balla du sama mbër man waa kër Modou Lo laa mais Balla moo mun booy ñaa du combat booy ñaa mun na bëre ak ñoom Tapha Tine bari na ñi mu war a bëreel comprendre nga euh, Bombardier nu mu tuddati Balla na laaj ay revanche ñoom Tapha Tine ñoom Bombardier xam nga loolu ay combat la affaire aussi warul nekk rek diggante Euh, Modou Balla Balla Modou Balla Balla Eumeu Sène yeneen mbër yi dañ cee bokk. voilà xam nga tey boo tëggoon euh, nu mu tuddati Sa Thiès ak Yékini Junior mais combat du siècle la. diggante Ama Balde ak Modou Balla Gaye Boy Niang loolu lamb la xam nga lamb moo toll nootul foo xam ne nga naan jiw liggéey lu tax may bore ak moom. lambu defa tool na foo xam te ni yaa ngeeg sa doole dangaa war a jaay sa doole balaa sa doole di tàggoo ak yow donc ñoom ñoo war a mayante xaalis seen biir kon nañ mayante sens ñu bore seen biir te man gisuma foofu sax mayante sens ndax dangay am may am kon dañu comprendre rek kenn ku nekk xam ne diw moo moo tax may fayeeku diw kii tamit xam ne diw moo tax may fayeeku. gis ngeen ne xale yi liggéey nañ ñu tax ñu war a mën a bëre ak xale yi vraiment ku leen ragalul ku ne mën naa la liggéey na lu tax ñuy bëre ak ñi si kaw. ndax ku mel na Boy Niang boore na ak Lac de te Lac de Guiers ci cour de grand yi la nekk kon grand yi foofu ku bërewul ak moom rek mun naa la am na loo koy bàyyee xel ku mel na Ama dafa dugg ci gala mu liggéey fa liggéey bu rafet ku daan guy gi daan tafaatiin daan jos nga génne si ñu jox la Papa Sow te Papa kenn ubbu ko combat presque si mbori nga daan ko mag boo war a tàllal loo ko war na la koo jox kon looloo tax ma ne la booy yi liggéey nañu tax ñu bëre grand yi kon grand yi tamit nañ comprendre loolu ñu xam ne ñoom it seen grand dañ leen mayoon loxo kon nañ may booy yi ñu bëre seen biir. rek booy judoogul kooku sama doom la ba ba ba bàyyi loolu du day fu ma gis dana ma jox cër waaw. mais lan ma jox ci lu tax nga ne du yomb si Ama Modou dafa nekk mbër boo xamante ne ndaanaan la. noonu la man Pikine laa jógee ñëw fii ndax maag Pape Diop bi nga dégg bàyyi nu ñoo bëree ba gannaaw raay booba ama seen ñoom yi kenn bëriwul boobu maag Pape Diop ñooy mbëru Pikine après ñoom Balla Gaye ñëw après ñoom Yàlla Alioune Seye ñëw voilà boobu ñoo ngi Pikine waaw jërëjëf